yoon dafay baax ñu ñu tàmm euh, di dajale ñi nga xam ne ñooy ñiy teg yoon ñuy fi fi mbaxana nekkee benn daal ñi ko yore maanaam juge yi ñu toog ak ñi nga xam ne ñoom ñooy justiciable yi maanaam sénégal yi tous les sénégal li nga bëgg orientation yi nga bëgg xëy na juge yi dinañ ne ah ñun de moyens yi lañ am pour def lii bëgg nañ yeneen moyen pour def lee xëy na sénégalais yi tamit dinañ wax waawe juge yéen seen liggéey dafa yéex euh, kaso yi vraiment conditions yi baaxul am na ñoo xam ne tey ñi ngi ci kaso yi te xëy na jugement bi doyu leen et cetera et cetera comment améliorer le chose pour que erreurs judiciaires yi dootul bëri et cetera et cetera donc yooyu yëpp ci yuñ ci waxtaanee j'espère que dinañ ci génne ay solutions.